asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk internet yu sen football TV nuyu na leen bu baax yax leen di am mbégte saa su defal leen vidéo kan mo wara nek attaquant des Lions au niveau de la cancha wala si match yi Sénégal yi di ñew euh, on a beaucoup d'attaquants yu différents que ça soit Nicolas Jackson bi xamante il est plus dribbleur di def contre appel Boulaye Dia bi xam day jël la profondeur euh, ki xamante ne renard des surfaces di Habib Diallo nga am mu nek pivot en même temps euh, nga am Iliman Ndiaye bi xamante faux neuf le numéro 10 le joueur bi joué ci côté la qui on doit mettre en attaque en équipe nationale du Sénégal c'est ça la question. Mais tout d'abord, on a deux matchs très importants. Éliminatoire Coupe du Monde, il faut tout faire pour gagner. Donc, euh, man, selon moi, jamono bi où on parle Pour moi, c'est triplé pour Nicolas Jackson contre Tottenham ma c'est mon double but contre Manchester City pour moi, actuellement le moins attaquant à gagner. jamono pour moi, dans un système 4-3-3 mon mon moo attaquant parce que Ismaël Sarr c'est à droite à gauche Sadio Mané dans un système 4-4-2 aussi dama koy teg boole ak Boulaye wala autour de qui euh, dit euh, Nicolas Jackson donc le meilleur attaquant des Lions jamono bi à où l'on parle c'est plus Nicolas Jackson maintenant il y a profil profilée c'est intéressant hein, parce que boo le profil euh, Iliman Ndiaye numéro 10 vous xamante ne jouer sur les côtés c'est assez intéressant pour Aliou Cissé boo jëlee aussi sur les côtés euh, Ismail Sarr moo ngi revenir nanka-nanka ah, du côté de moi, c'est c'est compliqué hein, mon muy moom di di Sarr mais ba tey boo jëlee Sadio Mané c'est le leader technique c'est normal maintenant dans un système vous xamante jouer avec des pistons xam trois défenseurs deux deux deux deux pistons yu xamante dañuy daw carrément ci côté yi bu ba bu boobaa aussi tamit un système qui bi six bi mën nga teg euh, kii di Pathé Ciss ak di et sur les côtés sans changement donc que ce soit système indirect, 4-3-3 4-4-2 et que souvent dañu leen wax ne football système amul solo li ëpp solo mooy animation bi maanaam bu ñu xasee ba teg euh, système bi que ce soit Lippi que ce soit Zinedine Zidane que ce soit Pep Guardiola ñoom ñëpp dañoo dañ lay wax même wax bi lañ lay wax mooy que boo xasee ba teg classement li si ëpp solo mooy animation bi maanaam joueur na lañu ñu defee xam nga déplacement xam nga donc voilà maintenant nag attaquant lu am solo la ci football surtout que ñun Sénégal jamono bi pour man bu fekkee am na fu xamante ne euh, ragal naa ko trop c'est plus comment faire na la ñuy def ba dugal na la def ba am efficacité suñu joueur li leen gën a yàqal li leen yàqal ci lu bëri mooy efficacité parce que et que Coupe d'Afrique bi mooy Coupe d'Afrique bi gën a nar a métti coupe d'Afrique bu xamante ne la may dara la coupe d'Afrique bu xamante ne Algérie dafa renforcer euh, Maroc dafa renforcer donc faut être efficace boo efficace rek équipe du taxaw ak yow donc euh, gis nañu contre Algérie loolu daf ñu manqué contre Cameroun on pouvait mettre deux buts manqué nañu xam donc loolu c'est à travailler et même en coupe du monde da ngay am yenn occasion yi di donc euh, pour coupe d'Afrique bii nii nañ jox peut-être Nicolas Jackson même si le mois de euh, novembre décembre on va voir a un attaquant du côté de Chabab on va voir ça Il Ndiaye avec Gattuso ça va matcher carrément on va voir l'ultime. c'est intéressant et Boulaye du côté de Salanitana, on va voir on sait qu'Alice, est c'est numéro 1. maintenant pour moi, si attaquant à bi attaquant c'est plus Nicolas Jackson ci commentaire si vous ak TV